bu neexee alhamdulilahi bi ni'matihi rek bu naqaree alhamdulilahi ala kulli xaal waaye lépp moom la rek gis noonu en scooter man yàlla laa gëm yàlla dama koo gëm wóolu ko dama koo gëm wóolu ko moom kese nag ma jël sama lépp teg ko ci loxoom lu ñëw rek mooma bu neexee mooma gis ngeen noonu mbokk yi l'honorable député Guy Marius Sagna bu ngeen gis noonu en scooter alhamdulilah euh, muy def tour bu naqaree alhamdulilah ala kulli xaal Guy Marius waaye lépp moom la rek elle est trop belle elle est trop écoute on va programmer moto bi ngeen def dañ c'est bon c'est bon Guy Marius Sagna. mbokk yi gis noonu voilà gis ngeen noonu muy saafonte ak nit ñi donc dafa moo demal demal mbokk yi ok gis ngeen noonu l'honorable député Guy Marius Sagna taxaw noonu di saafonte ak nit ñi ko fekk fii ci autoroute à bi ci station bi donc gis ngeen noonu moom mi ngi ñëw en scooter du ñàkk ne convoi bi daf ko raw mu daal di ñëw daal di koy dab gis ngeen noonu mbokk yi l'honorable député Guy Marius Sagna mbokk yi gis ngeen noonu l'honorable Guy Marius Sagna ba tey ci euh, campagne présidentielle bi ci pause bi nga xam ne amal nañ ko fii voilà gis ngeen donc dafa dafa abboon moto pour def tour fii au niveau de l'autoroute à péage gis ngeen noonu le cortège taxaw def benn pause mbokk yi gis ngeen noonu ñu ngi leen toppal la campagne présidentielle gis ngeen noonu voilà donc gis ngeen noonu euh, oto yaa ngi taxaw euh, def benn stand by ngir mën a jël carburant le temps ñuy egg fale dans le département de Kër Massar aussi dans le département de Guédiawaye nga xam ne tey coalition Diomaye président fa lu ñu jëm si gis ngeen noonu donc ñu leen koy toppal comme à chaque fois sur 313 digital di leen wan les temps forts de la campagne présidentielle gis ngeen noonu gannaaw département bu Dakar gannaaw département